<laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi bëggeeti leen ziar leen joxati leen seen wàccuwaay xëri la sutub kocc bi nee naa leen ba tàyyi mën naa kànja mën naa maafe dama ne yaa quelqu'un <laughs> est-ce qu'il y a quelqu'un gars yi leen wax ngeen ko ne de abonné aimé partage like vidéo yi gars yi di partager c'est très important parce que Khary Pro sëtub kocc bi mën na kànja mën na maafe moom sëtub kocc bi tey gars yi dama indi dossier boo xam ni wax dëgg yàlla euh, c'est très important damay faral di wax naan euh, gars yi réew mi dañu ko bokk te ab nen bu ñu ko bokkee ngalla bu ñu kenn omelette ko nan ko mayonnaise ku dikk càpp diw dem sa morom diw loolu mooy démocratie gars yi fi may waxee tey nag wax dëgg yàlla ngeen jéggal ma comme dañoo euh, jóge ci weeru koor yàlla def na talaxlaxi nan rakkam-rakkami nan ba yàlla def na ña nga pale nii di talaxlaxi ci <laughs> faire pele waaw comme nag léegi saison bi ubbi na koor gi jeex na def nañ pale ci waja iran wax dëgg yàlla ak ba baati man ko korida xam léegi nag wax dëgg yàlla ak fi réew mi toll dañuy talaxlaxi toutes les actualités yi nga xamante ne ñoo am fii sunum réew Sénégal man xërit naa ci waslu àq ci waja iran ak ba man man xëri mu bàyyi Sonko dama ni tey dama indi benn dossier boo xam ni doy na waar non doy na waar nag <laughs> yéeyéeyé maa ngi jéggalu nag encore une fois Amina ndeysaan euh, sama yaay ju bax joju wax deug yalla ku bax la Amina Amina ku bax la man bima ma dossier bi wax deug yalla bëggoon na ci def vidéo depuis avant-hier mais le problème se pose mooy euh, mbir bo ci duggu dafa am noo ciy duggee te wax dëgg yàlla bëggumaa def vidéo ñu nan xëri ni nga ko waxé du ni wala waxo deug wala nangam sangam motax toujours rek li leen di wax focussons-nous et poursuivons enquête non poursuivons enquête <laughs> ki nga xamni ni Amina famille sénégalaise ak nga xamni moy Papa ndoy du Papa Ndoye Mbale nag ndax tem ngeen yaakaar ne Papa Ndoye Mbale woy ku mel ni Papa Ndoye sunu maire be du moom de du maire ba Papa Ndoye mii day taxawaalu <laughs> gars yi euh, wax dëgg yàlla damay indi benn dossier tey dossier bi nag am na importance euh, bëgg naa ñu waxtaane ko ndax nga xam ni moo di Papa da doon génn ak nga xam ni moo di Amina dañ doon génn. man nak affaire l'amour dama ci war dama ko wara baye parce que lu nit dund ci amour rek dund na lu ko raw <laughs> trahison ba nit dund ci amour <laughs> dund na lu ko raw moo dama doo ko amour guma di ci wax parce que l'amour non l'amour l'amour dafa dafa don lo xamni wala ko deug yalla da graw lu yeme la waye nak ñun ay soldar lañ amul problème dañ koy jé 11h 11h l'amour deug la waye nak après l'amour c'est l'amitié ba tax na dossier bi nga xam ni moom laa indi tey Papa Ndiaye ki nga xam ni wala Vass ki nga xam ni mooy euh, Amina Amina ak Papa Ndiaye dañ doon génn génn bu yàgg lool mu doon amour boo xamante ni wax dëgg yàlla amoon na sincérité à wax dëgg yàlla amour bu amour bu neexoon sax ñu dund amour amour bu neex yéyéy amour bu cukkuru puuc lan dund dund <laughs> ndeysaan yi bala maa sori ci débat bi ndax coow li bi mu tambalé euh, man dama jékki-jékki rek gis nga xamanteni ni papando di parce que bi coow li tàmbalee Papa ci bopam mo mo moo éclaté problème bi manam problème bi papando yi moko ko ci internet yi man lima ma bëgg xam moy papando yi manam lan mo tax mom papando yi mu jël problème bo xamni vie privée la manam vie privée ak vie privée Amina mu sam ko ci internet bi li bëgg na ko xam. ndax euh, internet yi may yi ma doon woo sax bi mu amee bari na mais man maa réservé woon sama bopp. <laughs> da ngay fen no Papa Ndoye da ngay fen c'est faux parce que la problème se pose mooy problème bu amee yëguma ko woon yow mii di ma seetaan yëgoo ko woon ak keneen ak keneen ak keneen kon problème bi kan moo ko saam sur la net problème bi kan moo ko génn ci kër gi indi ko ci mbedd mi parce que internet mbedd la. Papa Ndoye euh, waxoo dëgg parce que problème bi mo amé yow yaay la première personne bi nga xamanté ni ya jóge sa kër dem kër ñom Amina filmé Amina muy nampal tout tankam nga publier ko sur la net lolu amna wala amul. ma defoon vidéo bi nga xamanté ne man maa ko fekkoon gàlleem filmer ko tas ko mu jur coow nag lu bari lolu <laughs> avant tout yow yow Pape Ndoye Pape Ndoye euh, da nga li nga def délit la tax xamoko Eh, li nga def deli la la di la yobbo école di la jàngloo jàngu yóbbu école nga wara jang fa nga nek nan tata tap to too tap tàpp taata yooyu leçon la Pam jay jang Pam Nduuj yooyu leçon la jang école Abdou e gourma Abdou n'est pas gourma comme les autres mais qu'il n'aime que la laax li la jang motax xamul yoon xamul droit xamul loi xamul liko war ak liko warul xamul ak ak yelleefu doomu adama bi mom pap ndoy liko ñoron rek moy manam nakaram yow nakar ni lañ koy ni lañ koy oh yow naqar ni lañ koy dundee Pape Ndoye noboon nga ko am l'amour ci moom xëy na mu xaar xaar bi yàgg mu dem wuti ku ko bëgg après yow lii nga war a mën a dund ak moom Pape Ndoye ci yenn raison Fatick Kaolack nga sobin am jam ñaajo donc tout ça pour sax ci biir wax ji dama dégg moom Pape yi mu ni moment bi nga xam ne parce que nag amur bu doy waar lañ doon dund mook Pape Ndoye yi mook Amina moom Pape Ndoye mii amour bu doy waar lañ doon dund. parce que ci biir wax ji dégg naa euh, ki nga xam ni moo di naa moment bi muy sëyi dafa tollu diggante maanaam dafa ëmb ci kàllaamay kocc kan moo ko ëmbal euh, Pape Ndoye nee na moo ko ëmbal nee na moment bi nga xam ni Euh, vidéo bi vraiment dafa am ay kàddu yoo xamante ne sax yëkkati ko sax dafa xaw a con quoi parce que képp koo gis am na mbokk képp koo gis am na famille képp koo gis am na ay doom am na ay baatu ëmbal wili pande loolu c'est dafa doon lu bizarre mais nag comme ñoom noonu lañ ko sentir man xërisatub kocc bi wax dëgg yàlla mën naa kànja mën naa maafe noonu laa koy waxee comme ñoom noonu lañ ko bëggee léegi man Amina bi muy sëy dafa ëmb ñu ni kan moo jamono joji amina mi ëmb sama dom jamono bobu amina mi nga ëmb ki nga xamni modi domu di doomu Pape kon gars comme dossier bi dossier l'amour le. dañu wara jël sun temps parce que l'amour dafa sensible non <laughs> prenez votre temps attachez vos ceintures wax dëgg yalla l'amour da sensible non c'est l'amour c'est l'amour dossier bi yag na de def na ñent fan maa koy laal tay xëri pro nag de retour ci showbiz ak acte politique day leer man la xëri sëtu kocc bi xëri pro et de ci acte politique ak showbiz man la xëri sëtu kocc bi yéen waa axlu showbiz xamut ngeen xamut <laughs> waaye mën a xëri waaw day leer de léegi Pape Ndoye Amina da doon génn ak moom xëy na Pape Ndoye Amina trahir bi mu ko trahir dem am jëkkër feneen loolu dafa metti Pape Ndoye moo waral Pape Ndoye réagiré nii mu réagiré maanaam Pape Ndoye ci ne ma ko mën a jàngalee ci misaal maanaam Pape Ndoye góor gu faible la dafa faible trop ndax loolu góor gu faible moo koy def mais man li ma jaaxal ci kàddu yi Pape Ndoye man dama dégg ñu ni Amina ci boppam jëkkëram nasaraan la portugais indien canadien canadien ban xeet la ju tubaab loolu indien wala wala waaw loolu lañ wax ñu ne jëkkëru nasaraan la lijjantiwuma ko lijjantiwuma sëyam ndax man euh, bu demee ba trahir ma rek moom la boppam la koy def <laughs> chefo pap ndoy waxoo dëgg tey waxoo dëgg suba waxoo dëgg ginnaaw suba parce que jëkkëram nasaraan la man sama yoon nekku ci bu demee ba trahir ma boppam la koy def kon lan moo tax c'est pourquoi la jalousie non lan moo tax jalousie lan moo tax jalousie lan moo tax nga nga jaloux jël ay yëfi démbu publier ko sur le net man lii jaaxal na ma da ngay teg foofu solo loxo Papa Ndiaye euh, Pape Ndoye di moins da ngay teg foofu solo loxo ma dem gis Amina. parce que Amina nag wax dëgg yàlla moom it lëfa ngi ci moom noonu lëfa ngi ci moom encore une fois message bi dama koy jàllale jigéen booy nekk góor da ngay nekk góor goo xam ni ah point d'interrogation ñaf leen ko ci commentaire góor goo xam ni. <laughs> na ngeen def ak coono jigéen booy nekk ak góor dangay ngay nekk góor goo xam ni la réponse sur les commentaires mën a xëri satub kocc bi ah déet <laughs> wax dëgg yàlla ah. Papa Ndoye ku ma xam-xam sama digganteeg Papa dafa yàgg. <laughs> waaw enquête mën na lu ne enquête mën na lu ne pour suñu loo nee na Papa Ndoye ma xam sama digganteeg Papa parce que sama digganteeg Papa dafa yàgg maanaam ay anecdote la ay dog-dogaan yu bari la yàgg na. amour nak yag manam taxul sey juddu ca mais nak yag man na tax mana juddu ca man xeri xëri sëtub kocc bi euh, Amina vous jere la parole. mënoon na comme na ma ah mënoon na noppi nak comme na ma noppee ah. say <laughs> problème de cukkuri do sep cukkuri nak man dama ko attanul do sep cukkuri do sep cukkuri do sep cukkuri oh attanu ma parce que nak sama xol day fess sama xol day fees yàlla bu ma ci jooy sax nee na mënoon naa noppi comme ni Amina noppee parce que sutura dafa baax foofu aussi dama fay dut baaraam ki nga xamante ni moo di Pape Ndoye parce jigéen boo nekkee moom ndeysaan di na la dara parce que jigéen ñàkk laa bañal dara moo tax ngay sëy nga nekk ak jigéen sëy euh, sëy judduwu ja du jàkka du église te ko soxlaa mu jox la boppam kon bëggeel yaakaar naa foofu la yem donte ko dafa araam nag bu fekkoon nag màkka nga nekk ba tey sa berkelle bi dañ koy dagg yow Pape Ndoye non day leer nag jayu ma la du ma la neexal kon màkk nga nekk tey sa vilebrequin bi on coupe ci bopp bi la ñuy dagg sa ñoxor njaay gi dañ koy dagg noo bu doon màkk nga nekk tey tey ngay ñàkk sullu noo day leer voilà parce que li nga def dafa aram yow takko taklu ba pare am nga am nga dom aram na ci yow aram na ci Amina legui nak pour bu ngeen ci beugé ay léral yu gina lér da ngeen dem ci Oustaz Ira ngeen wo ko ci 77 am bi mi ngi dox <laughs> Oustaz Ira Ndaw 77 am bi mi ngi dox bu ngeen ci beugé am lu leen lér ngeen dem ca waaw waaw foofu laa mën a man xëri Amina poursuivons enquête continuer te duma bayyi bi du jall du nee ko ëppul ay mbokk mëna ko jëw Papa Ndoye moo la gën a xam ne ci dëkk bi laa dëkk man la góor jigéen ak caga bu góor ak traîner kat ak ku xamul loo bëgg du ma wax yow. <laughs> góor jigéen. caga bi ku xamul loo bëgg yow it euh, Amina ba nga xamee ne da ngaa nekk góor goo xam ni kenn xamul lu mu bëgg parce que ñàkk xam ni nga bëgg lay tax nga nekk jigéen fukki at di génn ak moom ba tey yónnee woo gura parce que man gis na fi ngor so xamne dem na ba ay mbokki ndaw si niko xolal yalla xam na ni baye ndaw si niko bo ñewé ñëwee jënd guro maay jënd lepp ta waaj demul no baye ndaw sa ca pare niko ko boo pour tak dina jënd guro la waré fu jàkkee lepp na ko def ta waaj demul kon lolu wax dëgg yàlla lëfa nga ca du mbëggeel parce que na fukki at de relation man dama ko contre contre naa ko ci benn côté bi mais nangul naa ko ñenn ñi parce que parfois nga gis relation yo xamni relation primaire lay doon relation primaire parfa nga gis ko xamne dang koy bëgg ci ba ngeen def CI ngeen ni and tenkam tenkami CP C1 CM2 ba kër ngeen am BFM ba bac soga mariage bobu d'accord nako parce que ay élève lañ ay xalé lañu amour d'enfance la day continuer di mag ni ngeen ni màggee lay màggee ba kër ngeen ni sey bobu d'accord nako waye ñaar ñuy bëgg laq 50 ans bëgg dundat fukki at yeen bu ngeen amé dom sax ndax ni ngeen fekkee njariñam dàq naa lolu man xëy sëtu kocc bi pour suivre enquête poursuivons enquête attention ceinture na ne def ak coono mani lëfa <laughs> ci mim réew non lëfa ngi ci mim réew lëf lu yaa ne won naa leen lëfa ngi ci miim réew mais lëfa ngi fi Amina day génn ak Pam Ndoy Pam Ndoy am na doom ak Amina ci biir ëmb bi lanu takk Amina Amina sëy ak tubaab ba Pam Ndoy wili pande ko sëy baak tubaab ba tas Amina fi mu ne mënatul a jot tubaab ba waaw xam nga li dossier la. bu nu wàññiwoon mooy bi damay damay tukki laa dina bi loolu kay man maa ko wax. buñ tu buñ damay tukkil adduna bi. teel na toog adduna bi dama koy tukkil mu jeex tàkk ñun ñëpp ñu bokk ci yam. la la la la le blanc est foutu le blanc parti de pays tubaab du bokki awra tubaab mën naa bokk lu ne ba mu desi awra xalaatu ko non non non tubaab kàccooram gépp bokki awra bokk ci non du bokki awra xalaatu ko. Hmm. waaye doom ji moom du ci teg bët bu leen fa bëgg doom day wëttu doom mais bii du jàll. <laughs> silence silence silence euh, loolu nag Amina euh, wax dëgg yàlla xam nga man premier choix yi laay def rek après da ngeen dem ci Baye Badio Camara yeggale ko man premier choix yi laay def rek li mën a nekk laa leen wax euh, doom ji sama maam kocc daan na naan doom bu fekkee jigéena a doomi yaayama ndax dit nga wax bu fekkee jigéen a doomi yaayama maanaam bu fekkee jigéen la ndayam ndayay borom mais bu fekkee góor la Pape Ndiaye borom mais nag à propos de doom ji góor la wala jigéen wala mu ngi ci diggante bi loolu dese na maa leer après da ngeen dem seeti baay bajo ba xam lu ci yoon wax parce que nag maam Kocc loolu la wax sama maam Kocc nga man li may àtte nii laay àtte man juge olofal laa voilà léegi après poursuivons enquête sur Baye Badio Baye Badio Camara mu ngeen demee na yëgal dossier bi mais nag bu dee jigéen la wax dëgg yàlla yaay borom waaye bu fekkee góor la bu feree bàyyee may borom waaw kon foofu Amina Poté da nga ciy waxtaan bajo Baye Badio waaw waxtaan ceeg moom dana wax dëgg yàlla. dossier bi daa riis man àttanuma lépp non ma mën a wax li ma mënta wax ma ba <laughs> man loolu wax dëgg yàlla euh, li ma xaw a jaaxal tuuti ba xaw maa surpris wax dëgg yàlla mooy moom Pape Ndoye nekk ak nit maanaam mu nekk ak Amina relation d'amour amul diggante bi yàgg lool nag wax dëgg yàlla yàgg na. ñuy dund amour wax dëgg yàlla di naan seen café Touba di paccal seen i nen poobar seen limon wax dëgg yàlla. pap ndoy bëggoon Amina begu go xamni ni wax deug yalla da dépasser les bor Amina xey wax deug yalla pap ndoy rek wax deug yalla Amina ne nok na la xaar ba son ma ya doxul ful la doxoo farata Pas kanak ko bëggoon mu sëyal la parce que nak gis nga nit ki bo génneeg mom fukki at te yónnee la ca noq dal rek ya ko tek sa bop pourquoi Amina gis benen deuk dem seyi pap ndoy bàyyi batay manam ni day wili pande ki nga xamni ni Amina ni day weer ki nga xam ni moo di Amina mais lan moo tax loola am Pape Ndoye pourquoi nga weer Amina. moom nag moo bëgg weer boppam comme que dafa wéer bëgg weer boppam ayca na ñëw ñu dem ci taabul yaa ngoone bi ñu weerante comme que lii la bëgg ba ñu ma ci dara nañu dem ba tribunal ñu taxaw. buñ tu buñ buñ buñ bàyyiwul mooy mi damay tukkil adduna bi. adduna bi dama koy tukkil mu jeex tàkk ñun ñëpp ñu bokk ci yam. daam ju delluwaat. sikk sàkk ma li waaye dimbali ma rek bañ a bàyyi caaxaan yi toog toog caaxaan bi ci 31 décembre damay tukki la àdduna <laughs>